mais ñoo xam ni dañuy lakk ay kër lakk ay néeg lakk ay këru jàmbur gaañ ay nit sàcc ay nit taal université amul kenn ci ibbi gémmi ñoom ñooñu entre nous nga baal ma quoi franchement faut pas m'énerver dama la ñaan quoi ñooñu bëgguma sax ñu am sax le statut de Sénégalais non non non non non dama ni non dama wax ñooñu ma ñëw jël comme des parties intégrantes du Sénégal université Dakar man fekkuma fi sax yooyu ban ñu taal ko ñemewuñu sa man pour man ay Sonko kay da nga naan ay mbindaanu Sonko ay dogam loolu laa bëgg nga ma ko wax ngir yàlla. dama wax ju bëgg des hommes politiques non mais yow tamit loolu dina. ñan ñooy mbind ñan ñooy mbindaanu Sonko. mais ay raxaskatu ndabam laa lay wax. ñan ñooy raxaskatu mais ñooñu ngay wax yëpp. non maître quand même. barke alxuraan karim laa la barke rasulaay man et puis xam nga mënu ma leen baal. ah. c'est des gens qui ont un vécu qui ont fait la politique qui ont fait des écoles de parti am ay responsabilités en fait léegi man fi ay xaaraankat laa leen jàppee quoi comme ni may wax léegi bëgg nguur ñoom pour ñoom seen adduna yëpp Sonko lañ ko yaakaar mais ñooñu man mais du ma leen gëm yàlla sax du ma leen ko jox ñooñu man ces gens là nga baal ma nga baal ma te lu ci deewee taal yi kon lu bërki ñëw la may baasam lakk leen sàcc leen ak ñi nekk à la diaspora ko bëgg naa ñu dellu si c'est un terroriste actuellement mais ñii c'est des complices du terrorisme man li ma lay wax ñoom ils sont de un terroriste pour ñoom yoon bi muy fàq comme ñooy bi fàq àll ñu mën ci am yoon bi ñu def mais ñooñu ñoom ils ne méritent le statut